ni léegi euh, amendement bi bokk na si tey bu fekkente ni tey kuréel bi nga xamante ni mooy euh, yore ak régulation de Senelec bi moom mooy nekk même kuréel bi mais mel ni moom moo am autorité pour signature waaw wala déet. moom ministre moom ministre bi nga xamante ni moom moom pouvoir bi ñu ko jox ci bi ñu jox boppam ndax moo di bi bi ñu jox boppam moo ëpp foofu la la euh, pouvoir bi nga xam moom la commission bi am. ba pare ñaareel bi amendement bu fekkente ne en tant que da nga ko indi assemblée nationale yaakaar naa ni même boo respecté sa bopp war nga respecté représentant peuple bi askan bi xam nga ne lii du amendement ndax dafa def motif dafa waroon def motif de amendement yàlla dogal loolu def ko mu def motif agression de code Garfield ba pare ñaareel bi nan nga maa def amendement boo xam ni assemblée nationale ñoo ko war a adopté amul motif amendement bi bindul amendement ba pare ñaareel bi signature dafa waroon am turam ci suuf te loolu lépp amul kon ma jàpp ni ñoom ñi nga xamante ne moom lañ dénk mbirum pétrole ak gaz bi li mu joxe assemblée nationale waru ko woon a validé même président commission bi Ablaye Balde bi ma ko waxee moom nee na ma man ñu nekkoon ministre jamonoy Ablaye Wade amendement bu ñu koy def dañ si gën a sëpp mais seenu rëy may mayu leen ñu dem ka ñu kat comme que honorable wax na li nañu dem def suspension cinq minutes def def ay rectification modification indiwaat ko pour ñu mën koo jàllale yaakaar naa ni loolu mooy erreur bi njëkk am moo tax que bi nga xamante ni ñëw na plénière ma xam ko ne ko yow mérite woo sax ministère surtout ministre bi nga xamante ni moo yore énergie ak pétrole bi ndax yaakaar naa ni chaque jour que lépp loo ñu mas a wax amul ba ci bi nga yore Senelec tey jii xamante ni da ngay mayaat si xëy na peut être da ngay nga indil loolu moo tax que problème bi am c'est que ma lu may wax ay fourne wane ay ndax xam ne lii bokkul ak amendement bi nga xamante ni tey moom la Abdoulaye Daouda Diallo joxe amendement Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi nii dafa def amendement motif de amendement ba pare def ñëw ba suuf nii moom dafa signé ba pare bind turam Abdoulaye Daouda jàll xam nga ñaari ñaari ñaari amendement yi bokkuñu bokkuñu te même mini te ministre de la république la kon jàpp naa ni président de la république bu fekkee dafay fal ay ministre war na xool ñi muy fal nan la ñu doon ndax fan yu mel ni ak heure yu mel ni yaakaar naa ni c'est très dangereux la république de Sénégal Mhm. d'accord mais nañ nañ def kon ci euh, wàllum euh, pétrole bi ak gaz bi léegi ni la nag yaa ngi wax naan lu mu ñu mës a wax nekkul dëgg Senelec pourtant moom bi mu jaaree Senelec ba tey ñëpp dañoo jàpp ne ci la courant bi commencé réglé. xam nga. ak euh, nga ne lam ñu doon wax amul. 2011. courant dafa coupé. 2011. waaw. ministre bi nga xamante mooy Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. ci Karim Wade après 2012 ñu def passation ak moom xamaloon na ko ne ko maa ngi def passation ak yow. mais jox naa la zéro délestage fekk na délestage 2012 délestage si jeex na ndax tey jii. Karim moo ko waxoon loolu. Karim moo ko waxoon loolu. programme programme tàkkal bi fi Karim Wade bàyyi woon ñoom ci lu sukkandiku ba indi woon bateau bii nga xam moo fi nekk tey di jox courant Sénégal bateau boobu noonu ci plan tàkkal la bokk. te ki nga xamante tey moo jiite woon plan tàkkal tey ñoom bu fekkoon rek xam na ne plan tàkkal yàq la du ñu ko jël tey ko mu nekk directeur kon xam na ni ki jiite woon plan tàkkal am na xam te mën naa liggéey loolu moo tax tey ji ñu ñoomee ko tey mu nekk directeur général impôt domaine kon jàpp naa ni xam-xam ba mu doon wane foofu noonu tey ñu ngi koy continuer di ko wane au niveau de jàpp naa ni moom mi nga xam mooy Matar Cissé du euh, dafa waxoon ni courant bi kenn du ko yokk ba pare am nañ bénéfice 36 milliards ñi ngi jaay waa bitim réew mais kooku nan nga ko mën a waxee ci jamono yoo xamante ni matugul sax 6 mois ñu jëm ay élection mais bi ñu koy wax boobu peut-être que dafa bëggoon pour euh, askan bi. Euh, sëlëm leen pour que bëgg lu neex Macky Sall ngir bu gañewaatee mu fal ko ministre mais la ma waxoon askan bi dadu si dëgg tey ñu génn élection yi tey lépp yokk ñu xool ay déficit ak ay bor yoo xamante ne Sénégal am na ko tey su may waxee bu ñu ko joxutoon cent vingt yi nga xam mooy loi de finances rectificative numéro deux bi nga xam ne ñoo ko wote woon Assemblée nationale mais comme Sénégal tey day daanu ndax li ñu yore si bor mënu ko fay te loolu lépp ñu ko war a mooy wax loo xamante ni du dëgg ak di masque woo loo xamante ni xam ne ay pax la ngir bëgg sa intérêt bopp ngir kaat pour président la xaw xam nga Sénégal coono yi ñu sonn mooy fi mu toll nii loo xamante ni lu am changement la ci diggante bi nga xamante ni tey mooy bi Macky Sall jëlee góor gi ba léegi ak jamono yii après 2021 ndax pétrole bi yokkuwul kon lan moo fi yokk ba tax ñoom ñu bëgg a yokk courant bi ndax Macky Sall bi nga xamante ni tey mi ngi dem élection ba yéri dañu ko yokkal courant bi yokkal essence bi yokkal dund bi mu ne leen dinaa ko yokk mais may leen ma bu campagne bi jàllee bu ma gagné dinaa ko yokk mais mënu ma ko yokk jamono yi ndax bu ma ko yokkee damay daanu promesse mu joxe woon nag après élection dafa jaar rek mu yokk commencé waxoon naa leen mais yéen ñi nekk euh, ca penc ndaw réew mi di assemblée nationale te mën ngeen ñu indil ay dindi ci lu jëm ci wàllum pétrole bi nee nañ voté nañu code beeg yooyu la mu santaane ci maanaam ñu jël suñu alal di ko joxee te yooyu yëpp am nañu jàpp ne respecté wuñ ko coowu pétrole amoon ci nit ñi wax ay milliards yi ci dara wala kon li ñu doon wax noonu yow xanaa nekkul dëgg. yéen ñi nekk ñu leen di indil chaque jour moom bagage xam nga xam nga Ahmed. Hmm. assemblée bi ñu indi code pétrole bi. 5 kilos la. 5 kilos ñu def procédure d'urgence. procédure nga xam ni président de la République mooy nawet loo xam mooy wax lii nañ ko gaaw jàllee coûte à coûte bëgg régler seen i problème fekk na déjà total bi nga xamante ni ñëw na. te yaakaar naa ministre bi ko yore woon yëpp boole woon na ko si code bu bees bi ngir ko ñu gaaw jox leen li nga xamante mooy bloc bi ñu war a jox mais député yi bu fekkente ne indi nañ loolu def pour cent cinq kilos dan la ko député mën si une semaine moom cinq kilos fëy cinq kilos bu ñu ko peesee moom la kooku député a leer si cinq ci ci nga xamante ne indi nañ ko mais ñun li ñu war a def def nañ ko population bi ñoom ñoo fal Macky Sall dañ koy fal damul leen bu ngeen demee ba assemblée jël leen opposition bi ngeen fal leen ndax bu ngeen gis ñëwee ko euh, bu loi projet loi ñëwee assemblée te méngoowut ak seen bëgg-bëgg ñu gàntal ko mais askan bi dégluwuñ ñu ñu jox leen majorité nit ki nag bu fekkente ni yow da koo jox président de la république mm-hmm. lu ko neex def mu jox assemblée nationale lu ko neex def mais ñu lañ opposition lan lan man mooy yéen kat lii ñu def si àll bi ñu dénkaane jarul yoon mais bu wootee jëkk ñoom ñooy wote ndax ñoo am majorité bi mais lenn loo xamante lu si jaar yoon la amul te aussi li ma lay xamal mooy gis nga code gaz si des yi gaz xam na Sénégal fi mu doon may wax ak gaz dajage bi Sénégal moo ko doon jënd Sénégal dem na ba ne léegi mënut jënd gaz boobu noonu ñu koy jaay sukk si mais léegi code bees bi dafa wax ne Sénégal moo am sañ-sañu jënd gaz gaz bi. Sénégal waaw. mais léegi sax nag bu ko jëndee ba pare moom am na ñoo xamante ne ay nit lan yoo xam ne waxuñu ñun doon de nga xam ne man jàpp naa ñoom seen i copain lay doon su boobaa pour ñoom am nañ sañ leen ko ñoom. loolu dafa nekk loo xamante ne lu garaaw la loo xamante ni tey impact bi ñu am si population nga xam ne population su boobaa dañu leen dugal si benn ngunu boo xamante ni ñoom lu leen neex lay def entre copain ak copain seet ñu leen neex pour que ñu jox leen pétrole bi. maa ngi déglu sama benn collègue sax di wax na ko est-ce que amuloo parce que maanaam li tax que ñu jël euh, affaire pétrole bi gudd ko si yooyu nag mais yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ni amul explication lu leer mais li am solo rek mooy li nga xamante ni mooy code gazier bi dafa garaaw code pétrole bi ba xam ndox diggante Sénégal mosu ne lan fa génn lan fa waxoon kenn xamu si dara ba pare amul ay séminaire amul ay explication bu ñëwee si boppam du ñu wax askan bi duñ mën a dégg. mais lu tax yéen mënoo leen a wax gouvernement bi lu leen a wax gouvernement bi li leen li wax ci autoroute bi maanaam ñu négocier waat yi xanaa loolu mënta ne. nit koo xamante ne da wax dëgg te nangut dégg dëgg boobu noonu. ah nanguwul dégg dëgg. mais Macky Sall li ñu ko wax lépp ci loo xam mooy defar réew mi ci ligne wax ay xalaat yoo xamante bu sukkandiku woon. te réew mi passé na ndax Sénégal kenn mënu koo yor si tata si ndax tey jii xoolal projet terre bi mille xool sa borom projet BRT bi presque su huit cent milliards aéroport jëm ñaajo lu mu doon sant Abdou Diouf lu mu doon cité yu bees yi lan lan doon stade yi lan lan doon tey jii xaalis boobu Sénégal lépp ay bor di fay suñu tool yi maanaam soixante onze milliards la ñuy fay dette publique bor par mois. par mois quarante cinq milliards salaire mais Sénégal dafa mën a am xaalis boobu noonu fan la ñu jëlee loolu loolu lépp tey jii ñu waxoon Macky Sall ni ko lii ngi def. nañu xool ci yan anam la ñuy mën a añ ay bor ndax Sénégal réew mu nekk da ngay mais bor yi nga xam moom nañu xam si nga xam ne na ñu génn ci suñu na dafa am gis-gis voilà na dafa am vision dafa am vision dafa passé jëm ñaajo surtout justement naan maanaam mi koy def pour terre bi est-ce que loolu tàmbali nañ ko amagul kon vision passul jam ñaajo li mu def lépp diggante Sénégal Dakar jam ñaay la yem wax ma feneen ah. foo xam def na fa dara ah. ah lu mu def feneen lu mu def feneen waaw tali yi muy continuer nag yaa ngi gis aéroport ba continuer léegi wutale ki autoroute ba continuer de Mbour dama ne autoroute bi fu may wax yow tàmbalee ko bokkul si bor yi de defaraatum Fatick Kaolack xam nga ñaata la Ila Touba yow kay ku nekk war a wax ci Macky Sall projet moom des na ñaata la bar lan yore autoroute Ila Touba bi projet Abdoulaye Wade projet Ablaye Wade. projet Ablaye Wade la te ñu moom ñu ngi doon wax ni. ah bon autoroute deux fois deux fois la waroon doon jógee Thiès jëm ba te kenn fay. Macky bi ñu fi ñëw fekk na benn xaalis boo xamante ni ci projet boobu la jëmoon mu jël ko jox ko xale yi pour wutal leen liggéey léegi xaalis ci usine banque pour ko defal projet boobu noonu mais projet boobu fii ak 40 ans ñun ñooy fay te projet bi tàmbaleegul fi mu toll nii bor Ila te ilaatu waaw boo ko bëggee ñu fay. waaw ak 45 milliards salaire muy loo xamante ni moo tax économique bi daanu fi mu toll nii. Mhm. waaw. léegi léegi wàllum autoroute bi nag euh, ñu ñëw ci gis nañu forum civil wax naa la ko léegi nii ñu ngi sàkku daal maanaam ñu xoolaat montage financier bi Sénac SA ñaata la ca def waaye tamit autoroute bi ci boppam accident yu bëri na embouteillage bi am fa ñoom daal xam naa ne daal bu ñu sañoon daal ñu xoolaat contrat bi. waaw xam ñëpp d'accord nañ si. ndax ki nga xamante ni indi nañ assemblée nationale la pour que ñu jéem a xool nan la ñuy fexe ba ñu yombal dem ak dikk bi ñu fay jaar ba ñu fayet lu bari mais proposé na leen loolu lépp pour que ñu xool aussi tamit nan la ñuy maanaam xoolewaat contrat bi génn li nga xamante ne réellement mooy la ndax bu fàttali ni contrat bi ñu koy def Macky Sall moo fi nekkoon xam na la ci xaw yëpp ndax moom moo signé woon kon signature moo ko laawaat moo moo nekk premier ministre kon yaakaar naa ni xam na li xew si autoroute bi bu fekkente nee na autoroute ni ñu ko joxoon baaxul te moom mu signé woon ko tey mu jëm ba nga xamante man nekk na président de la république tey jàpp naa li nga moom la waroon njëkk a def mooy woowaat ñi nga xamante ñoom la seqal neen ma koy signé dama ko signé woon dama bëgg ñu xoolaat nangam nangam nangam mais yàlla dëgg na loolu lépp du ko def ndax ku ne xam ne Macky Sall lu neex yi te jàpp na ne bu ko defee français yi mere ko moo tax kat ñu jël benn décision boo xamante ni dafay nekk décision boo xamante ni dafay nekk si bëgg-bëggu askan wi mais lu mu jël décision rek ci bëgg-bëggu français